nii ndox la ndoxu fromage boo defaree fromage ba pare ndox bi siy jogee ndox la bu baax bi nga xam ne dafa am ferñeentea ah, bi nga xam ne boo ko joxee xale bu xiiboon baax na ci moom baax na ci góor itam day yokk kattan affaire kii bu baax la produit bu baax la amul benn ah, ki benn produit chimique ah, local la fii lañ ko liggéeyee meewu nag bi yëpp ci lañ ko jëlee am nañ fi itam kii boor bi nga xam ne mu ngi ni li itam boor la lii mais soow bi ci meew mi lañ wayal ba pare dindi ci bóor lii bóor la bu dee ci kii wolof lañ ko dax la léegi bi li ngay jël nga defar ko nga toggaat ko diw ñor bi dax la lépp ci nag la jóge lii tamit fromage la bateel yi tamit ci meewu nag bi lañ ko jëlee ci nag bi moom la ñuy defar meewu nag bi wayal ko defar ko fromage nga xam ne kii euh, boo ko defaree tamit amul benn produit chimique dañ koy lekk produit euh, local la dara defuñ ci li nga xam ne dana sonnal nit. nag yee xar yi du ndawal kese si fromage boo koy def sax meewu béy moo gën a neex fromage booy def fromage meewu béy moo ci gën neex boo ko defee incha allah danga ci guju góob bu baax la lay jox te amul benn luy lore amul luy gaañ produit local la moo baax si ñun. kon nag bu ñu la ñoo dem di jéggaani na ñu jënd li nga xam ne ñun ñoo ko moom ñoo ko juddule moom suñuy nag moom suñuy xar moom suñuy béy ratt ko defar ko am ci soow am ci meew am ci boor am ci fromage am ci diw ñor yëpp a ngi ci biir ñun dañoo def formation parce que dëgg yàlla nguur gi bàyyiwuñu benn benn yoon nguur gi mu ngi ñuy jàppale ministère élevage ñu ngi ñuy jàppale ci nguur gi euh, formation bu nekk defal nañu ko ñoom ñoom ñoo ci jàpp ba yàlla dimbale ñu fekk na fii dangay ratt nawet bi meew nga tuur ko doo am soo amoo foo ko denc parce que buñ la formé wul mënoo koo soppali mënoo koo denc day yàqu rek.